waaw monsieur le maire Alioune Mar ak délégation salaam. yéen yéen a ñëw ngeen ko war da ko war a andi si li ñu ñaan ñun ñu déglu leen ba xam lan ngeen nuy andi. waaw bu ñu xamee liggéey nuy andi nit ñun ñu xam lan lan lañ seete moo tax dañ leen di doyloo kàddu bi mm-hmm. ah bu ñu tàmbalee ba wax ci sori ba ñu xam ne lii ñu nu andil kat mooy li waa dëkk bi dëkk. ñu sant leen gërëm leen ànd seeti yéen bu ñu jàppee ne am na lu ñu si war a jooyanti it nu ne leen jooyantil leen nu lii loolu daal mooy kàddu yi doon jiital di sant ñëpp di leen gërëm damay dalal xelu population bi parce que sant yàlla la sax parce que gis nañu yàkkamti nañu ñoom wax ci

ku ci bëgg wax ci bëgg di nga wax tout à l'heure daw yàgg waaw mais dañuy tijji affaire bi wax ci généralité bi après bàyyi technicien yi ñoom ñu continuer alhamdulilah rabbil alamin d' abord dañuy sama xel bi xam may fàtte damay nuyoo tàmbali ma yàgguñu fi mais gis nañu taxawaay bi ñu taxaw ñun suñu wàll bopp ci wàllu liggéey bi aussi gis nañu doxe doxalin bi ñuy doxal par rapport ak population donc bu ñu jógee ci maire ñu le représentant du maire de la ville de Rufisque Dao de Niang représenté par David Faye qui est aussi adjoint au maire la ville de Rufisque aussi enfrentar o Wesley, ele está roubando esse cachorro. Se ele enfrentar o Wesley, ele está roubando um pouquinho da chave. Atrás dele, ele não anda bem, ele pivota magistral. Nous le sous-préfet de l'éducation, à travers elle, son doctorat, qui est mon imam de la République du de quartier, nous notable, nous aussi chefe de serviço nous avons am na ci kenn ku ci teew muy waa ONAS parce que compte tenu de service de a stratégiquement l'importance de nous occupé du département généralement mais plus particulièrement par rapport à niveau de waaj nous aussi particulièrement hein, de manière spécifique et spéciale madame wane gàll sekk nga xam ne ci tuur rek la tuddoo jéeg xëy na yàlla la xëy la dogal gis ko ci mm, suñu njàng mu gàtt Green Sénégal ak turam sax moom ci boppam lu jëm ci wàllu environnement daal ñu ngi koy diir wala ñu koy dégg ci ci projet yu bëri donc euh, ñu ngi koy nuyu ba pare mu nekk rapporteur conseil économique social et environnemental ñu ngi koy nuyu di ko dalal bu baax di ci di wax delluwaat nag ci sant yàlla bi ñuy sant yàlla bi firkee ci moom pourquoi parce que dañuy sant yàlla ci benn ci tey li ñuy waaj a sumb nañu ay acteurs clés des personnes ressources yoo xam ni ils sont là en l'occurrence elle ak ñeneen ñoo xam ne xëy na ñu ci biir mbooloo mi gisuñu leen ñu nar a processus bi te loolu important ndax xam nañ ni jox nañ ci exemple léegi mu cawle ak déroulement bi ak mu demee ba taxaw ak ñoom ñu ci dugale woon seen loxo donc je pense que bu gis ci tàmbali ñoom ñu bàyyi seen ay yitte ñëw fekkee cérémonie bi nar jël engagement ànd ak projet bi accompagner ko ba mu taxaw loolu sant yàlla donc ñu ko ci gërëm sant ak

parce que bon, au cours du automatiquement le gouvernement avait demandé à ce que nous recenser pour nous lan la affecté Bali était en Yann était en Jokkul Donc, d'accord. Après, après y a eu une réaction le ministre le premier ministre est venu mais après l'ONAS est venu à travers le directeur général pour la population Moi, sincèrement ba may ñëw boobu xaw ma ni woon Le projet DIC bi dina dina hein, très sincèrement

ba tey ñu nar def une étude d'impact environnemental loolu sant yàlla ci ñu am yaakaar bu baax ni euh, affaire yi dina dina dina jaar yoon liggéey bi dina matal lu tax parce que boobu troisième point bu sant bi mooy dafa am loo xam ne en matière d'environnement madame Seck là les environnementalistes sont là ou en matière de projet sax laay wax dafa am loo xam ne c'est un préalable léegi c'est obligatoire

mooy jël en compte tous ces aspects toutes ces toutes ces préoccupations intégrées dans le cadre de l'exécution du projet donc loolu sant yàlla la aussi parce que je pense que de de mémoire ou de je ne sais pas dans le passé ou dans pas mal de projets gis nañ fi ay projets yoo xam ne ñëw rek démarré kenn

donc alhamdulilah rabbil euh, bu ma jógee ci loolu damay dugg rek ci na point parce que man du ma guddal loolu damay xàmm di gàttal rek si ñaar ñetti point parce que li gën a am solo si waxtaan bi dina ñëw te li gën a am solo ci partie officielle bi sax maire wax nañ ko maanaam mooy kan ñëw na ci léegi waa AGETIP consultant bi ñëw na ci léegi ñëw ci parce que Thiam daf ko wax léegi te xam naa bu ñu jógee tey

pour que à l'avance évidemment je sais que ça bien pas, mais n'y a il pas de que surtout la question de la sécurité que nous informez, informer à toutes les manœuvres que vous devriez entreprendre ça nous permettra de prendre les devants et nous permettre de lever accompagner le, processus et puis sur ça sur ce je j'en profite Daniel, pour voir les dans la centrale, xel ci moins que l'administration territorial bi un service technique Nous service technique wax naa fi aussi renouvellement déjà d'emblée cette disponibilité pour accompagner le processus parce que impérativement nous serons dans le processus impérativement donc je renouvelle cette disponibilité et vous assure que nous allons vous accompagner dans le cadre de ce projet jusqu'à terme avec les forecasts bien sûr donc même euh, bi nga xam ne peut-être moom laay tëjee mooy peut-être kàddu yoo xam ne dama koy yëkkati sànni ko ci jëmale ko ci côté population bi parce que ñoom aussi ñooy dayu mbir mi wax leen ni rek ni leen projet bi comme ni ngeen ko xamee seen projet la bu ci gars ñëwee ci biir ngeen xam lu mu ëmb te am na lu mu ëmb lu bëri loo xam ne càmm duñu duñu fekk déjà c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement important yaakaar naa ne bu demee ba pour population yokku lay nekk te ñoo permettre loo xam ne dañ ko doon yokk bu njëkk te doo te te mu mun nekk jéego boo xam ne kenn xamul kañ lay ñëw yàlla def yàlla dogal mu mu mu mu ànd wala mu uuf wala mu mu mu dem parce que wax nañ exemple Thiawlé géej gi aujourd'hui utilité bi am foofu donc fii itam bu fi defee bi dina permettre ay puudar yooyu bu fi am dina ko dina ko dàq bu baax parce que gis nañ si débat bi mbiru cimetière bi dafa dafa daanu complètement pour un cimetière quand même boo xam ne c'est des c'est c'est nos parents ay papa ay yaay ay ay maam ñoo ko dëgg je pense que rafetlu à chaque fois mu genre jëy ñu mel noonu amee naturel muy daaneel ji ñuy wala heureusement sax ba amul ay dégâts humains amu ko di passé donc ñu ñaan yàlla rek bii bu ñu ko defaree ba mu taxaw

ñëw ñun pour seen bopp pour yéen a tax ñu ñëw ko donc yéen aussi da ngeen leen war a rendre la monnaie mooy ubbil leen de telle sorte nga xamante ni moom la ñuy sàkku yàlla def mu bu am ñu profité rek balaa ñu kii comme que ay ñaan lañ jidéewu ñu sàkku ñaan ci ci imam bi bu baax ak ulema yi fi nekk

j'attends toujours mon carte de que je n'ai pas. parce que, parce que j'habite dans Donc minimum. Donc euh, ndax boo ko si ay maamam ñu ngi gis cosaan ba léegi ay maamam ak nekkoon ak seen i maam a seen baay ba mu ñëw moom li muy nekk xale lépp bu fi jógee woon ko gën a nekk ndaw nekk rek ñu ngi gis cosaan ba léegi. boobu yi nag ki nga ne mooy le consultant le consultant waaw kay. voilà euh, waxtaan dafa am ñaari fa bu officiel waxe ba pare consultant bi day continuer waxtaan bi maanaam mu am ay échange entre consultant bi ak population merci. alors voilà bon merci euh, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di nuyu monsieur le maire ak euh, l'autorité administrative maanaam préfet bi ak ñi mu àndal di nuyu aussi waa rifis waa Jokkul di kontaan si cérémonie bi ñu def tey. muy cérémonie boo xam ne information la ak consultation sur le projet projet bi nag bon xam naa ni njëkk naa wax mais euh, dinaa laal tuuti si si lancu madame Niang parce que moom moo waroon a présenter projet bi wax leen projet bi naka la projet bi léegi benn digg maanaam miir benn digg la ñuy tabax diggante miir bi ak dëkkuwaay yi léegi miir ba fa nekk miir bële duñ ko daaneel dañ koy gën a dëgëral maanaam jël xeer yeeg yooyu xeer yu ñuul yi euh, sës ko si. seede ba ñu jëkk a nekk amoon na fi ñu def si yàlla adjoint euh, sous-préfet Kandji te moo ne bu ñu teel bi ba ñoom moo nekkoon seen préfet moo nekkoon seen ministre kon dañuy ñaan yéen ngeen bari ci tànk ñu bari tànk ci yéen ba fu ñu ci gis danaa ci mooy suñu maa ngi leen di di leen gërëm surtout seen taxawaay bi ñuy tamit ki nga xam ne moom moo fi tawal le maire Daouda Niang maire de la ville ndax imam projet bi nag bàyyiwul kenn yëfi Tëngéej la yëfi Jokkul la yëfi Louga Ouest la yëfi Tëngéej la yëfi département bi la kon bu représentant maire yi ñëwee fii de war fi jël kàddu yaakaar naa nga xam ne nag ñoo fi teew am na suñu beneen jarbaat boo xam ne miinaguñu ko moonte la muy yore moom moo a jigéen bu di monsieur ko fi indi te ONAS ci loxoom la ko teg lépp loo xam ne jëm na ci assainissement moom moo ko yore xam naa sax gare ga bala moo def il faut mu gasal la mu dugal la ay tuyau ndax ndox ñu gën a mën benn yoon laa tasee moom bi mooy njaar mais nit ba la tasee benn boo dee nit mën nga xam ba xam man nga sóobu ci moom wala mën nga dellu gannaaw kon daal kii dama leen koy dégg ndax la mu yor fële moom moo ko gardé mais ñun ñoo ko moom kon ba population baa nii lépp loo xam ne yaakaar nga ne mën na la ci jàppale defe naa ne bala ngaa wax ñu ko xalaatee rek ñu ko def di nuyu nag madame Niang madame Niang moom defe naa ne yéen waa Jokal yéen a ko gën a xam madame moom defe naa ne yéen a damay toog nii ak consultant bi ma ne ko madame Niang de bu ñu deful ndànk sax dinañ jiite wax ak nit ñi dem daan dem yoonam ndax loolu aussi daf ko def dañu fàtte la ne loo bu ko fiy wala Nioro waaw délégation bu ñëw tamit bu ko jiite wut moom ci la def donc loolu ñu ngi lay gërëm di la wax ne ñëwoon na sa kër miinoon na fi mais imam délégué de quartier ak jigéen ñi ñoom seen bu ñaar ñëpp ñu ngi lay wax ne sëf néeg bale nañ ko nga nu ñëwaat na toog fii ñu nuyu ñu ñu àndal parce que tamit projet bi ñëpp ko moom mais buñ ci farluwul nit ñi sax mën nañ yaakaar ne ñun dañ ko soofantal mosuñoo dem benn délégation boo xam ne adjoint au maire président de commission yi yëpp ñëw nañ conseil yi municipaux yi ñëpp ñëw nañ wax naa premier adjoint mu ngi ñuy abouté deuxième adjoint de Marseille officier d'état civil Doudou Ndiaye daaw da kon yaay bi nga xam ne nag lépp loo xam ne dafa wàllu ci affaire projet suñu commune ñun defe naa ne moom aussi moo ci joxe xalaatam donc affaire bi am na solo lool tey na bu njàng ñi nga teel a ñëwee tamit na ne jokkul moo la ñor yàlla moo la gën di nuyu DST Mamat Soare turam moom ñun ñëpp xam nañu ko ndax moo fi nekkoon def liggéey bi mu ci ay après moom mu jógee fi tukki ba mu ñëwaatee daaw jël ko ne ko liggéey bi ñoo laaj ji wóor kon boog caam Mademia daanaka Dame Maria ak Mohamed Saare ñoom ñoo nekk seen interlocuteur bu doon bind ma rek yem ci dama naa la kaay la ñu wax mais nag bu desee un plus un moom dama koy bàyyi ak yéen rek parce que du ma ko tudd donc ci gërëm ñëpp di wax ne tamit ci ndaje ni yéen waa Jokal des lu wàcc ko wax grand jour ñëw na teew bu ñëwee nag délégué dañu xam ne moom dafa toog a délégué de yëpp mm-hmm. te bu yàlla bu ñu yeggee ci phase yi nga xam ne moom moo gën a soññ délégué de quartier Tëngéej lu ko yëpp dina ànd ak ñoom def mm-hmm. parce que bu boobaa aussi dina am kàddu bu ñu ci su ma sañoon nag ku nekk dina jaar juróom jaar ci santam mm-hmm. mais nag dinaa remercier conseil municipal Rufisque yëf yi

parce responsabilité bu rëy moom moo fi am as le conseil de quartier bi am na responsabilité bu rëy boo xam ne dina ko joué il faut que ñu joué ko ba nga xam ne au moins nañ sentir ne population yi ñu ànd ci projet projet ba gën a neex nekkul bi état bi defar wala bi maire bi di defar population yi dem tëdd nelaw bu gën a neex képp ku dëkk ci dëkk bi mu nekk xale mu nekk jigéen nekk góor nekk mag bu tëddee day jàpp ne projet bi moo ko moom loolu la leen sant su mënul nekk tamit ma ko créé benn conseil de quartier rek waa ma boole donc loolu saa si bu rëy la te xam naa ne aussi ñi nga waxee noonu la conseil de quartier bi doxee yaakaar naa ne aussi dina gën a jëm kanam ñuy yëpp di wax ne ma maa lay nuyu di wax ne lii fi am il faut que nous remercions l'État du Sénégal. Nous remercions le président de la République Macky Sall ndaxte nag kër bu fa dara amee dafa neex borom kër gi. ban fii jëkk a ñëw fekk mën nañ ci xëccoo bu metti xam ngeen ne lang gi ba Ndakaaru ñëpp xëccoo projet yàlla def état ñëw ne kat dinañ koy def loolu su ko amee. ñu koy wax ñu koy gërëm. ñu gërëm état du Sénégal. mais tamit état du Sénégal am na lu koy yëngal mooy kuréelu état yi ñi xam ne ñoo nekk ci soowu jant Afrique muy bi moo wax ñooñu tamit imaam bu ñu jullee na leen ñaanal ndax bala moon génn ci gémmiñu état bi foofu la jógee te ñooñu fa ñu nekk dafa sori bu ñu demee ba xalaat jokkul dañu wax nañ ñooñu amuñu leen jukkal man ñu leen a fay yàlla leen yàlla fay di wax ne tamit li fi des nag moo di ba mu caam population bi dama projet bi durée bi dafa gàtt il faut mu gaaw awma temps bu may perdre ma ne ko man de xam naa sama population jokkul foo jële dale rek population jokkul na wax ne wàññi ko boo fukki fan duñ fi def projet bi man naa ànd ak waa Jokalante ne def ko juróomi fan te loolu biir na ma ne doon ci am benn docteur madame ñaar na sa xel dal bu kenn yaakaar ne dina am luy tardé loo xam ne fii lay jóge ci Jokalante bu soobee yàlla loolu moom jël naa ko engagement ci turu population bi ci conseil municipal bi naa จะเป็นอะไรไอวกนี้แต่ว่าบางทีเราจะหันตามไปกันไอ้อะไรต้องไปมันต้องไปยันใครต้องต้องต้องมาต้องที่นั่นจะเป็นอะไรบอกกันละบอกกันละเราควรทำในบล็อกภาษาไยก็นะคนตานดูเนี่ยแต่ก็ไม่แต่ก็ไม่ว่าเราเกิดวันนี้มีเลยทำให้เกิด changé nga nag mais su ma am nee naa Sénégal daal baal na la boo bi dafa nekk loo xam ne dafa am ku koy defar mais ki koy defar moomu ko daf ci am yéene bëgg mu am ñun ñoo ko moom ñun waa Jokal bëgg nañu képp koo xam ne ñi def ñaan ci jàkka ji bu ñu toogee ci pénc mi ñu ngi ci waxtaan. xale buy ngelaw ñu xamal ko lan mooy barrage bi xam ngeen ko sax ndax nag fii madame Dia teewe nga ay yoon yoon yoon yoon bi dal ñu commencé ñëw ma ne leen mënuma ci dara fekk yaay daamu wax ne pël ba ba muy yuuxu gémmeñ gi dem xaw ma fan noonu la ngeen géej daanu ma ko wax naar ba naar ba dafa am géej mu jël gémmeñ gi jëmale ko gànnaar pour yuuxu donc yuuxu naa ci rajo bu nekk fii fii ci tefes gi pour que jàppale kon bu waa AGETIP ñëwee état bi ñëw waa UMOA ñëw mais lu ci des mooy ñu ànd projet bi ñu ñëw ànd ak projet bi te assurance boobu am nañ ko naka ku nekk def ne bu dee jigéen na ko def comme jëkkëram bu dee góor na ko def comme jabaram xam nga sëy jël sa jabar moom foo toog yaa ngi njëkk a foo toog yaa koy xalaat ci lu baax donc projet bi il faut que ñu dugal ko xolu waa Sokone ñu mel ni ñii dañ ñuy jàppale que ñun ñoo koy defar ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di ñaan imam surtout jeunes yi ñu taxaw ci projet barrage ñoom nag ñàkk nañ ko def ku nekk ku nekk def nañ ko donc la ñuy xool du mu xool rafetaayu barrage bi la ñuy xool mooy njariñu barrage bi ak naka la ñuy taxawoo maa ngi ñaan nag yan kii bi bañ a des ginnaaw ci taxawaay bi nga xam ne dañ ko war a am ci liggéey bi ñu ngi sant ñëpp ñu gërëm ñëpp ne leen dajam léegi ba amoon ndaw laa bi boo waxee lu jàpp da ngay arrêté te lii maa ngi war a ñëw rek ñu doon jël dara boole tamit liggéey liggéey bu rafet boo xam ne ñoo ko bokkoon nekk ci liggéey fële Sawlen mu doon jigéen bu mën góor daal macha allah. donc xam nga bëggee man su may intervenir rek mooy am na ko war a waxee def la ñu def cawleen yow maa bokk financé mu ngi commencé ci 2007 ba mu amee foofu mu amoon fa ay ravage yu metti état Sénégal moo moo moo moo fee moo féetee euh, am tuuti euh, sa xaalis commencé def étude soo ko def nag étude de réalisation étude bi def nañ ko mais mënuñoo tabax ndax xaalis bi mu laaj dafa teg ñuy def étude pour jur jur amuñu un mois moo ñëw mooy investissement rek mu yor noonu moo ñëw rek xool bi financé loolu tam mu doon loo ne dañ koy sant yàlla di ko financé yàlla tam dimbali ñu ba ñu mën ko liggéey ci anam yu yu baax comme ni ko waree waxee ñaari yoon am nañ fi loo xam ne firndeel na fi foofu daal ñu sant yàlla ñu bëggoon nag comme ni ko war a waxee continuer ko sur toute la côte xaalis amul état Sénégal ne dama def étude ma defee étude ci côte bi yëpp ko defee su ma ut ay partenaires chaque année ma am fu ma def chaque année ma am fu ma def bu ñu def jokkul bu ñu def caw leen di ko étudier mu amoon fi tam événement yu amoon jokkul ministre bi fa nekkoon mooy euh, Djibo Ka moo nekkoon ministère de l' environnement Djibo Ka daal di ñëw boobu sax man xam chef de projet def ñu xool situation si lu gën ah, yàlla mu ngi koy soog sotti mais moom bëggoon na ko def ak Sergio boobu tam ñu def étude bi amuñu budget un mois encore ñu ne de finance même état Sénégal loolu dafa dugal pour étudier moom lii projet boo xam ne moom gën a soxal soxal na état bi mais dafa mel ni purement la gën a soxal moom moo ñëw jël jox ko xaalis bi barewul ñu convention bi depuis 2000 euh, 2013 euh, fin 2013 2015 yëpp lu tax mënaguñu réaliser te du am na lu tax ñu ne ko ñu réaliser mooy lii nga xam ne moom la confiance ñëpp xam ngeen booy def liggéey pour ñu ngi defal xam ay jéego yooyu defal te comme liggéey bi nii sax dafa am benn porte environnementale ak des populations bu important il faut am expert koo xam ne mooy ñëw xool projet bi ni mu mun a gàllankoor du ñàkk ay gàllankoor du ñàkk ñu xool ni muy def yan moyens la teg ba ni muy gàllankoor mu mu xaw a xaw ko wàññi loolu balaa projet bi ba ci biir projet bi bu ñu paree projet bi tamit am na loo xam ne mooy entretien ñu muy ñu muy ñu nit ñi di nekk moom moom si ak ministère de l' environnement moom mooy suñu ñu naan wax mooy suñu lépp ci moom lañu la ñu réew daal donc moom dinañ def benn comité boo xam ne ay experts ñoo fi nekk ñu xool étude bu ñu def xayma ko nga amee lu ci amélioré mu amélioré ko bu paree ñu daal di koy delloowaat ci li nga xam ne liggéey nañ ko ba jàng liggéey bi ni ñu ko war a tabaxee jàng nañ ko pare li ñu ciy amélioré ñu amélioré soo ko validé soo ko mën a nag lancer appel mais comme nu ko euh, consultant bi waxee moom naa kese tari comme dafa xaw a tar yii yëpp décembre war temps lii moom mënoon jël temps ak lancement te doog te lii yàlla jaar nañ ko ci loxo mel mu mun a gaaw. ak itam tam am na lu mu ci def ndax dañoo waroon lancer appel d'offre jël kenn laaj UEMOA avec les avis et tout ATTIP ne ma maa koy fay. donc consultant bi lu muy liggéey nii ATTIP moo ko jël charge en charge donc pour mu mun a gaaw. donc donc liggéey bi nag ñaari ñaari dëgg la ñu comme caw la. donc li ci nekk dañu comme caw la dafa am benn partie fii. boo xam ne téeméeri mètre la ak juróom fukk ak cent cinquante côté cimetière tamit naan cent cinquante dañoo ne woon li fi nekk dañuy maintenir am na xeer yoo xam ne daw na loolu seen i romb gisee loolu la ñuy ram moom la ñu moom ñuy renforcer waat yoo xam ne dañ ko fiy teg am xam ne dañ koy jëliwaat ñoo ko renforcer moom la gën a am gën a am gaz lu muy gàllankoor ci liggéey bi mooy am na ni dugal ci matériel yi ak ñi fiy liggéey parce ñi fiy liggéey ñoom il faut seen ñoom la ñuy suturloo il faut ñu mën a continuer moom ci boobu anam léegi moo tax waxtaan ak nit ñi bu baax. am na loo xam ne nag moom ci liggéeyam day day day tëddee njaaraane moom moom day xool nu mu koy améliorer mais projet bi fu mu bi dañ ko tënk ba pare. am 1 milliard ak yoo xam ne ak yow maa génne na ko moom bu tënkee ne dañ fi def pôle. bu tënkee ne nañ si amélioré lii mu naka ci projet bi loolu dañuy seet yan anam lañ koy financé mais moom lañ liggéey liggéeyam normal dafa am loo xam ne dëgg mën a nekk daloon nañu daloon nañu caw na lu ñu dëgg la jur ndax bokkuloon ci projet bi muro cimetière bi bokkuloon ci projet bi aménagement bokkul ci projet bi fexe nañu lu ñu def ba am ba financé ko mënuñu mais yàlla def gestion de l'environnement moom mu ci financé tëj cimetière léegi mu des nag loo xam ne population ñoom mën nañu ko def ay jënd ak ay garab ak yooyu yooyu projet bëggoon na ko mën ndax lépp ci côté environnement bi donc xam naa wax bi ci mën a gudd nañ nii nii parce que bare kam xam naa bi ñuy waxtaan ak nit ñi la lañ lañ koy mais daal maa ngi sant ñëpp ñaan yàlla tamit euh, di leen ñaan ngeen ñaanal ñu ñu sumb ni ñu mën ko def ñu sotti jàmm ak salaam ñi xam ne ndaw ñu ci am ci caw leen ah yàlla mooy joxe yàlla jox ñu ko fi tamit ñu toog ba feneen tamit euh, fii daal ngeen mën a tëdd nelaw ah activité yokku kër yi gën a am terrain. xel mun na dal parce que boo wootee maire ñëw administration centrale bi ñëw délégué de quartier yi ñëw imam yi ñëw association jeunes yi ñëw mouvement de jeunesse yi nga xam ne dañuy yëngatu si napp gi ak ci géej gi ñëw waa dëkk bi yëpp taxawu defe naa ne sa xel mun na dal waaw tey nag dañu ñëw rek rek la woon man nag yàlla dogal na dama ñëw si ñaari kër ñëw naa en tant que adjoint au maire de la ville de Rufisque mais tamit ñëw naa en tant que conseiller de l'ouest bi nga xam ne man la animar dénk lépp luy projet ci goxam loolu nag taxawaay boobu nag mooy taxawaay sax bii gën a bi ma gën a fonk parce que tey jii li muy li li ñu fi dajale dafa doon lu jafe lu Sénégal yëpp soxla ñu tàmm ci jokkul ne yow lii ñëpp soxla woon yow dañ koy jox loolu nag comme ni ko Abdoulaye waxee ah war nañ ci gërëm président laaj bi parce que lu jëm jaagam ne moom mooy jaar moom moo tànn tënge tànn joxul les trois cent mètres yi lii nañ koy defal te xam nga ne déeg moom ku la ko defal rek sauvé na la parce que bu ko fi deful jéeg gi sa kër la jëm ay conséquences yu baree bëri bëri yoo xam ne te mënu ko mesurer kon nag amee nañ ko dugal man nag population bi laay waxal xamal leen ne li ñu fiy def tey jii pour yéen la liggéey bi comme ni ko Ousmane Thiam le consultant waxee dina bari ay nuisance yu bari bari bari bari mais nag taxaw nañu temm pour taxawu leen ndaxte jóguñu rek bu defal leen ji lépp loo xam ne tamit ay jumtukaay la woon si tefes gi da ngeen manqué woon ko bu ñu waxtaanee bu jubóo si nañ si mën taxawu Ousmane Thiam nag sunu gan la mais suñu mbokk la diir bi mu fiy toog yëpp ci liggéey bi man naa ko fiy wéttali donc lu ngeen ko mënul wax mu ngeen ma ko wax nàpp fii fiy wéttali maa koy jàppale lépp ñoo koy doxandoo te yaakaar naa ne seen bëgg-bëgg sama bëgg-bëgg la kon nag bu yàlla dogalee man ma toog ak moom ñu toog fii di leen liggéeyal yaakaar naa ne lépp lu nekk amoon comme difficulté dinañ ko mun a réglé. waaw. xanaa kañ delluwaat rek di leen gën a ñaar parce que liggéey bi war nañu ko liggéey si nawet donc jot ji bariwul taawu wax ji bari yi tamit màgg ko waaw dafa war a gaaw lool lool lool lool lool. kon nag mu ngeen ko mën a taxawoo jàppale ko ba liggéey bi gaaw mu sotteex jàng ba bala moo taw ñu jox leen seen ji lépp lu ngeen ko mën def mu ngeen ko xeeb loolu ñu yaakaar ci yéen loolu la ñu seet ci yéen maa ngi leen di nuyu kon di leen euh, gën a ñaax di nuyu sama jigéen bi war a gànn parce que bu ko neexoon mu ne lii waa Sénégal daf ma yoon nekk mais moom Sénégal moo ko ñor. lébu bi it moo ko ñor parce que jàpp na ne jàpp na ne Bargny la dëkk mais tamit Tëngéej la dëkk ndax ay mbokkam rek nekk man ngi wax ak yéen mbokkam laa waaw ni mu fonkee diggu Thiawlène fonkee ko diggu Bargny noonu la ko fonkee diggu Diofior Kaw kon nag na xam ne lépp loo xam ne mën nañu ko andi si xam-xam ak si xalaat taxaw na ko indi ñu ko parce que yàlla dogal tamit li ñuy liggéey fii mu xarañ si lool man ci lu bari bari bari bari am ci yéene bu rafet jëm si dëkk bi kon nag maa ngi leen di nuyu di leen gërëm wa salaam. loolu ñu ngi si tàmbali liggéey bi nag loolu ko tàmbali autorité yi dañuy ñëw waxtaan ak population yi ci naka lay demee kon tey jii loolu mooy solo liggéey balaa diir bu gàtt nag du mat weer sax tubaab bi avec équipe bi nga jeex ñu commencé di simple barrage kon tey jii bésu démarrage la mais dinañ ci profité tamit di ci gërëm état du Sénégal di gërëm surtout UMOA ndax bu ñu wonte UMOA état du Sénégal yaakaar ni barrage bi mën que loolu état la bu sécurité population yi mais loolu dina yàq kon man en tant que maire ak ci population bi ci bureau municipal bi conseil municipal yi ñu ngi gërëm état Sénégal ñu ngi gërëm union monétaire de l'Ouest africain donc ñëpp leen di gërëm di gërëm tamit autorités yi solo bi daal daanaka loolu rek moom lañ ko mën a. xam ku projet bi ñu ko projet bi finalement premier coup bi biñu annoncer bi ñu ngi tollu ci 1 milliard 500 mais nak comme projet toujours man na am yo xamné dañ ko ci lawal mais nañu japp né 1 milliard 500 mom le projet bi démarré a durée bi ñata temps lay doon durée bi nak mo tax am ci gaaw ñu ñu ko ñu yépp ñu ñu ya nañu jox donc, dans cinq mois, le faire euh, ça. Où est-ce Pouvez-vous revenir sur l'objet de manifestation Ah, ah, ah, même. Ah, ah, ah. ah L'activité consiste à démarrer l'impact pour la réalisation de l'article de protection du corps. Aujourd'hui, ça a été une cérémonie qui marque le démarrage de cette activité et c'était une prise de contact avec les populations. Poser ce départ avec une projet centrale et pour mettre vie que dans un mois, les travaux vont démarrer. Donc voilà un peu le sens de cette activité, le sens de la présence de l'ensemble des autorités du pays. Nous avons aussi bien le traité local, la ville, la commune, le département, c'est expliqué nous avons également choisi une centrale qui sont les préfets du département. Donc aujourd'hui, c'était ça, c'est le premier acte. Et certainement, dans un très court délai, les actes concrets concernant la pose du premier pierre, concernant le démarrage des travaux physiques, ces actes-là vont se faire dans le goût. En fait, euh, pour le initial le démarrage du projet, c'est 1,5 milliard. Et vous savez, un projet, puisque ça se déroule, puisque ça appelle également d'autres sous-projets. En conséquence, le nous a invité pour faire une déclaration c'est 1,5 milliard. Certainement, il y aura des accessoires du projet. Donc,

seven and ñun nag en tant que administration si d'être présent mooy teew ñoom ànd ak maire bi ànd cabinet étude d'impact Et c'est un accompagnement perpétuel et loolu du mu a dañ du mës a jaar donc ñun ñu ngi fi teewal aussi suñu accompagnement daal mooy du fi jóg lépp loo xam ne ci ànd ak techniciens yi ci projet bi ànd ci ñoom réalisation da ngeen taal ngay dénk askan waaw wax naa ko léegi ci discours bi ba ñuy ba ñuy tëj nee leen projet bi seen projet la. buñ koy def yéen lañ koy defal ñi koy def ñu demee ko avant ñu koy def ñu ñëw boo leen toog waxtaan ak yéen ngir jël li nga xamante ne moom mooy seen ay xalaat ci projet bi je pense que loolu wax naa ko sànq sant yàlla na et que ñoom ils se doivent de rendre la monnaie mooy dañu war a euh, war a gunge li nga xam ne moom ñoo war a développé ba projet bi incha allah rabbi liñ ci seen taxaw waaw ñaax nañ leen daal ci loolu te ñoom aussi disons ak ñu la chose favorablement. ci ci ci waxtaan. sentir nañu population bi yàgg nañu bëgg projet bi. donc bu yàlla defee tey dem a taxaw. yaakaar naa loolu li ñu mën a def rek mooy continuer accompagner continuer am ubbeeku continuer am dalal bu baax ci technicien yi nga xam ne ñoom ñoo projet, c'est un projet de construction de deux digues. Une digue pour protéger les habitations de Djoko, une autre digue pour protéger les cimetières de, de Une digue, de, deux digues de 150 mètres, le tout ça fait 300 mètres. Hein? La construction du de la est-ce que euh, ça n'aura pas euh, Non, bon, l'objectif du projet, c'est d'améliorer le cadre de vie, parce que les gens sont souvent, euh, chaque année, pendant les fortes surtout l'hivernage, sont victimes de en tout cas, vagues qui viennent, qui, passent à travers les murs, qui très qui souvent contenir la, mer à l'état. c'est une façon de stopper, parce qu'on est dans les zone où la mer avance continuellement. On a le fait de faire, le faire diriger une digue ici, en tout cas de stabiliser la production. Le délai des travaux sont estimés à Voilà. Voilà, les Dougoussars, c'est Almerie, il y a ça, des inondés Almerie. léegi loolu lépp pour gouvernement bi du Sénégal bëgg a régler problème boobu def ci benn diig maanaam genre barrage boo xam ne dina tax géej gi bu ñëwee dal si du ñëw du dugg si quartier yi du dugg si alpin

juróomi weer lañ ko ab liggéey bi juróomi weer la voilà. askan wi askan bi bëgg nañ ko trop léegi nag ñun euh, suñu liggéey si affaire bi dañuy jéem a liggéey bi nan lañ koy jaarale yoon ba nga xam ne lool ak.